lay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 te di leen siyaar te di leen ñaanal sama borom gudd seen sutura ah maa ngi leen sant nag liggéey bii nuy liggéey si turandoo sëñ Basiir yu Mbàkke yi ah ñi ngeen ma ci kii dafa ma njukkal looy na sëkk la maa bëgg liggéey bi moom lépp ngeen eh, yore ko bu ko defee moo topp si ndax nit ki boo ko yoree lii da lay am loolu xam ne lii da la koy delloo su ko defee yéen ñëpp ngeen jàpp ci lu ci xam ci lu koy baaxal daal lu koy jëme kanam na ko wax na ko jëf te kenn rek ba ba ba baax waaw man nag maa ngi leen sant ndax yàlla mi am pay rek moo am seen pay ndax liggéey bi ban ko tàmbalee yàgg na lool ñu ma taat waaye at mu ne mu ngeen di gën a góorgóorlu rek kon nag nañu góorgóorlu bu baax a baax a baax yokk suñu posteef sans borom mi dolli sutura yàlla na leen dolli sutura guddal seen fan te may leen wér man nag damaa mënewul wax waaye nag na la wóor ne moom maa ngi leen sant da ko tàmbalee si Bachir sëñ Bachir yàlla ni ko yor ba ak yéen ñi ñëpp ba ci du ma tudd sax tudd ndax bu ma tudd dama lima doon jum waaye sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp maa ngi ñaan yàlla mu ànd bi yàgg lool ci barke sëñ Basiru Mbàkke asalaamaaleykum wa rahmatullah asubillahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim doomu jin yaakaar rakan san ila sirata jërëjëf Cheikh Basiru Mbàkke jërëjëf Cheikh Mountakha Mbàkke liggéey bi day ñi ma ko seqal mooy Basiru Fall ak Basiru Ka ñooy ñu topp ci man maa ngi sant itam sëriñ Serigne Bassirou Mbacké yi nekk euh, département Bambey yëpp di ñaan ñu yàgg fi te wér ak seeni kilifa ndax ni ma leen koy laaja ni la ñu ma koy joxe wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ at mu jot li ñuy joxe mooy ëpp lañ joxe woon daaw maa ngi leen di sant di leen ñaanal fanu gudd ànd ak wér ñu gën a man lii ñu leen di laaj ñu gën yàlla ak yonent ak Cheikh Bassirou Mbacké yombal la leen yal ko teewe na gën a déwén fekk fi Cheikh Mountakha te yàlla may ko wér ci barke Serigne Touba yéen ñi nga xay yéen a dëkk njaareem yi te liggéey bi ñoo ngi leen di sant bu baax a baax a baax tey ñaan ngeen yàgg fi te wér te yàgg noo jiite nu yàgg a topp ci yéen ci barke Cheikh Bassirou Mbacké waa département Bambey nag ay jàmbaar lañ kenn du leen man ci sas wi at mu jot li ñuy joxe ren bu dee ñu joxe këpp kon noo ngi leen di sant tey ñaan ci yàlla yonteeg Cheikh Basirou mbooloo mi gën a yokk wërsëg yi gën a wokku yàlla barkeel njaboot gi ten fekke ko tatal ko ci barke Cheikh Basirou Mbacke jërëjëf wa inni a'uudzubika wa suriyataha mina seytaani rajim rabbi a'uudzubika ba a'uudzubika mina hamasayatin wa a'uudzubika rabbi an yahdurun bismillahi rahmani wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ila yawmi diin asalaamaaleykum mbokk ji leen mbokk taalibe maa ngi leen nuyu di leen siyaara di leen sant sant moom rawatina mbokk turandoo sëñ Basiru dëkk wàllu Mboro ak Tivaouane ak région Thiès yëpp Mbour ak Tivaouane ak Tivaouane Mboro ak Tivaouane ak ak Mbour ak yëpp waa région Thiès yëpp mu leen di ñaax ci turandoo sëñ Basiru ci daayira bi ngeen bàyyi ci xel góorgóorlu ci baax te xam ni lii bis bu am solo bis bi nga xam ni euh, sëñ Touba moo ko daan màggal fii di ci def ay berne di ci bind xasaayit am ci mbégte lool bu toogee ba doomam Cheikh Mouhamadou Bassirou yoroon wëlbati ko doomam sëñ sëñ Moustapha Bassirou yor ko wëlbati ko jox ko turandoo yi kon nag bis bi nga bis bu am solo la bis bu gën a mag ci bis yi juddug yonent bi sa ndax lu yàlla bind Seydina naa sallallahu alayhi wa moo tax sëñ Touba ku fonkoon Seydina Muhammad la Euh, wax na ni salaatu sita bi mat si sita tay tihi bata manti sayi na at fukki weer ñaar yëpp jaamu yàlla ak tagg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rek moo ci yitteem ba si may ko jox ko lim am yëpp a jeexal boole koog suñ borom mi jeexal mu mu defal ko lu mu defalul kenn kon nag bis bi war nañ ko fonk ngir yàlla ak yonent bi eh, ngir yàlla ak ak jëm yonent bi ci ci ak suñu sëriñ suñu wàllu sëriñ Tuubaa di góor góorgóorlu ci baax ndax nit amul euh, jullit lu amul lu dul gannaaw yàlla Seydina Muhammad ak sa wasila gannaaw sa ñaari waajur donc bis bi maa ngi ñaan ñu fonk ko ñun ñëpp ku ci ne fa nga ne nga soññ sa bopp taxaw ci bu baax a baax euh, addee ji moom wax fa dëgg yàlla jàpp ne at ma jot nga jox junni rek loolu jàpp nañu Euh, lu waay ñàkk ñàkk solo loolu war na koo lijjanti góor góorgóorlu ci taxaw ci baax te xam ne bis bi ndigal la bis bu am njariñ la bisu xéewal la bisu yonante bi te lu yàlla bind moo tax maa leen sonn ñu ci góorgóorlu daal fu ne fu waay nekk nga góorgóorlu ci soñ sa bopp te taxaw ci taxawaay bu rafet ndax amuñu lu yàlla ak yonante bi sëñ Tuba ak suñu ñaari waajur kon nag bis bi euh, bis bu am solo la ci góorgóorlu baax te lu ci waay def ko sëñ Tuba nag amul. amul amul tànk ginnaaw sëñ Tuubaa nag ñimul bor daa am fay lu ko waaye defal fii defaloo kenn sa bopp rek nga ko defal ndax sëñ Tuubaa digganteem ak suñ borom dafa mel ni suukar ak ndox moo xam ne da ngaa sotti ndox suukar si te ndox ma jaxase noonu la mel ak suñ borom loo ko defal rek yàlla nga ko defal te yàlla kat boo ko lebalee benn mu fay la juróom-ñeent boole ba nga la muy fukk kon koo ko jar lebal nañ ci la baax am ci yéene ak pas-pas ak taxawaay bu rafet. defe ko lu kawe suñ jot ak kawe ndew sëriñ ndax loolu rek ñun moo mën a jëriñ tey ak ëllëg taalibe ndigal rek ndigal rek moo am solo te sëñ Tuubaa dani Tuubaa lin ab diin muriya din saadixin loxumoo bi xidmatin xaw bi huddin aw adiati adiya da leen di jariñ fii jaral leen jariñ leen ci lëndëm dënd mu bàmmeel waaw léegi nag kon nag euh, lu lu waay lu nit lu ñàkk ñàkk yow nga am ku ku wér ni ku wér nga wér ku wéradi nga wér ku am nga am ku amul nga am ku am di am yàlla may la addunay ajjane adduna ajjanay ajjanay biir ak biti kon nag loolu sëñ bi nag war na nañu yoonu ñoo ci des nañ lu baax ci ci sëriñ bi ci addi yeeg lépp rek ci ndigalu sëñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu aousu billahi min seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim noo nuyu mbokk yi fi teew rawatina turandoo Serigne Basirou noo ngi leen di nuyu di leen sant ci guddik euh, yonent bi nga xam ne moom la ñuy màggal tey fii ci njaarim di ci sonn nag képp kuy turandoo sëñ Basiru ah guddi gi nag ni nga xam ni ñun ñu ngi jógee ba waa euh, fële Lour Escale ah département bu Koungheul képp ku fa nekk te tudd Basiru rek ñu lay sudd ci basi ci ci guddi gi loolu daal xam naa ñu maa ngi ànd ak sama benn mbokk bu ñuy wax Bas mu dëkk fee ci Daaru Kafaat moom la àndal ñëw fii daayira bi jógee foofu ci département bu kafrin ñun lañuy yebal ñun ñooy délégué yi wax dëgg yàlla de fii liñ fi gis dal na xel daal te xam naa liñ fi gisandoo daal mënuñ ko jël di ko nettali ku fi ñëw rek ba gisal ko sa bopp daal a ah, wax dëgg yàlla moom doy na sant sëriñ bi fii de wax dëgg yàlla liñ fi gis ci liggéey gis fi ci liggéey sëñ Touba gis fi ci ay jeexitalam yoo xam ne nii fekk nañ ko fiñ ñoo ngi ci sant bu baax di ñaanal nag sañ mu Mountakha moom sëñ Mouhamadou Bassir ñoo ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax yàlla yokk wéram bu baax a baax a baax a baax a yokk fanam loolu daal ñu ngi koy ñaan di soññ nag képp ku tudd euh, koo xam ne nii rek tuddee ni la sëriñ Bassirou man de gërëm naa sama waajur mi ma boole tuddee ma sëriñ Bassirou yàlla dogal na fii ñëw naa fi ay yooni yooni yoon kon nag képp koo xam ne nii yaa ngi ci suñu département muy département bu Kaffrine bu Koungheul ñoo ngi lay soññi bés bii ngay ñëw di ko teewee képp ku turandowu sañ Basiru rek ñoo ngi lay woo fii asalaamualeykum wa rahmatullah bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen mbokki taalib yéen mbokki turandoo yi sëriñ Basiru ma maa ngi leen di nuyu ci turu département bu Koungheul ci association yooyu ñu def ci turu ndoori sëñ Bachir yi may wax nag ci suñ département mbooleem ku nekk ci département bu Koungheul te tudd Serigne Bachir ñu ngi lay soññ ci liggéey bii ndax liggéey bi ñun Serigne Bachir Serigne Touba rek lañ ciy liggéeyal te Serigne Mountakha mi ñu koy liggéeyal jar na ko. te Bassirou mu nekk ñi nekk ci Sénégal yëpp moom la ñooy dajale fii te war nañu takkuwaat ñun turundoor yi sëñ Bassirou ndax fii war nañ fa dajale loo xam ne ci turundoor yi département bi rek benn département rek war na ko mën a dajale waaye nag buñ demee ba liggéey bi génn dana am nu may demee ndax ñàkk soññante gi maa ngi soññ nag suñ suñ département bi yëpp man man nag fa ma dëkk. ña nga xam ne ñoo fay tudd Serigne sëriñ Serigne Bassirou kii ma àndal nii di waa Kër Ñang la waa Thiénang ci waxuma naa turandoori Serigne Bassirou yi rek buñ doon liggéey nit ñi doon liggéeyee kon liggéey bi dana jëm ci kanam ñu ngi rafet nag liggéey bi bu baax ndax liggéey bi rafet nag li ma ci li ci des nag mooy ñun takkuwaat ñun jawrin yi ak jawrin yi nga xam ne ñoo nekk fii ci njaarim ci Jurbel di. soññ liggéey bi war nañu seetaat beneen solution ndax war nañ na jog di fekki nit ñi kenn ku ne région boobu nga nekk war nañ am benn bis ñun ñëpp ñu dajaloo buy benn oto ñu jël ko di dem par région di dem par département di wër nit ñi kon danañ gën a mën a gis liggéey bi niñ ko war a doxalee kon loolu moom moo di sama xalaat xalaat bu rafet rek laa bëgg ndax dama bëgg lu yokk rek. te buñ demee ci nit ñi dana gën a yokk ndax ñun ñiy soññ man mii di bañ màggale ba léegi maa ngi soññ waaye tax ba léegi liggéey bi taxul mu mel ni meloon man maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp nag di soññ sama département nag muy Lour Escale Maka Yop Gent Paat Rébu Escale ñooñu ñooy suñ commune maa ngi leen di woo ñoom ñëpp ci turandoo sañ sëñ Basiru ñu gën a fagaru gën a jàppaat ñun nag suñu assistant bi ndax Basiru Lo bu Riba waa kër sëñ Baye Lo mooy président bi Basiru Lo bu Nduur moom waa kër sëñ Baye Lo la mooy président bi man ñama seqat ñëpp kenn ci dëkkut kër sëñ Basiru waaye ñëpp turandoori sëñ Basiru lañ ñëw nañ jàpp ci man nag sant naa leen gërëm naa leen sant naa département bi yëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi ñoo ngi ci liggéey ba léegi ci gàmmo gi toog ak sëñ Bassirou Diouk teewal trondo yi sëñ Bassirou foofu ca Gabon sëñ Bassirou ñu ngi lay nuyu la siyaare gàmmo ko Sénégal sori na lool wante sëñ Bassiroo ko jar ñu ngi lay siyaare wér wér dañaan jéego yi nga jéego suñu boom yokk jafel ci xéewal dañoo bëgg na sa mbokk yi féete Gabon noo leen mën a soññee ak loolu leen mën a a soññee ci liggéey bi rek ñu soññal ko ci télé bi ci bàkki sëñ jërëjëf barki sëñ Tuba ah ñu ngi sant yàlla bu baax ndaxte lii eh, ah, du loo xam ni ñépp ko am teew ci bis bu mel nii ci biir kër sëñ Bassirou yëpp ñu ne la yaa fi teewal dëkk bu mel ni Gabon mbégte mu rëy la wax dëgg yàlla kontaan biñ ci am ëpp na ëpp na xam nañ ni nag eh, matuñu ci jëwrin waaye daal bu soobee yàlla comme noo fi teewal waa Gabon lépp loo xam ne nii rek eh, lu yokk daayira bi la te muy jóge ca ca Gabon nga ñu ne bu soobee yàlla des na ci dox ay jéego di ñaan sëñ Bassirou yëpp ñaanal nu rek bu soobee yàlla dinañ ja dinañ jàllale communication bi dinañ wax ñëpp pësteef gi Bassirou yi am ndax kenn ku ne sa bopp rek nga ci liggéey la kon nag buñ fi teewalee waa Gabon ñu nit war nañu buñ demee wax leen daal pësteef bi nga xam ne si Bassirou am nañ ko. ba kenn ku ne loo taxaw woon rek nga gën ko taxaw ci waa kër sëñ Bassirou yeeg daayira sëñ Bassirou bi ndax am ñu lu dul moom ñun nag suñ teewaay bi moom eh, tuuti nañ ci eh, représenté sax pour Libreville Gabon ndax rëy na lool waaye nag comme noo fi teew yàlla la yàlla dogal ah ñu ngi ciy sant bu baax di ci gërëm di ci gërëm ñëpp jëwriñ yéeg ñëpp di ci sant bu baax a baax a baax di ñaan daal ngeen doolu ñuy ay ñaan yu baax. boo bu déwénee daal ñu teew fi ak yeneen i basiiru yu ne ca Gabon ak xéewal yu yaatu yu barkeel barke sëñ basiiru ñu ngi ciy sant di gërëm bu soobee barke borom Tuubaa barke sëñ basiiru Mbàkke alhamdulillah sëriñ Touba barke Cheikh Mamadou Bassir asalaamaaleykum mbooloo mu teer bi nuy déglu ne ngi nuyu ci di leen sant seen seen tur ak seen sant bu baax a baax a baax a baax di sant sëriñ Touba bu baax a baax di sant sëñ Falloum sëñ Bassir bu baax a baax di sant sëñ Bassir Touba Mérina ak sëñ Mountakha sant ne leen bu baax a baax di leen ñaana seenu fan yàgg fi lool ci barke sëriñ Touba Ah, cant gi it dinaa ci boole maanaam ñi nga xam ne bi ñoo doon dimbali maanaam ku demee ne sëñ Malick Fall Moustapha Kébé ak Bassirou Gueye paan ak dëkk bi yëpp daal fa ndax képp koo xam ne ki dem na fi yaw ci di laaj ndimbal suñ ci daayira bi sax da nga nu yàkkamti ba dina woo loolu lépp nag ndimbalu suñ Bassirou nga xam ne ñoo xam ne ñu ngi wër di laaj te kenn joxu leen dara waaye nag noonu fu ñu dem dañu yàkkamte ñëw ci ñoom ci bañ jox na addee sëñ Basiir loolu it boo ko defee ak cant lañ koy def te xam ne du suñu jëmm du suñu dara du suñ dara yàlla ak sëñ Basiiroo tax ah buñ sàncee ñooñu ba nappi ñi nga xam ne bi mooy waa dëkk bi nga xam ne ñoonu jàppale ñu ngi leen di ñaan yàlla yokk seen wërsëg bu baax a baax a baax a baax ah bu loolu weesoo it ñi nga xam ne ñoom laa àndal doon liggéey liggéey bi mënuma leen a mënuma leen ñàkk sant dañu jëru ñuy wax sax waaye wax bunta ñàkk ku demee ne bàyyi Basiiru Lo Caaro yi il faut danañ ko sant sëñ Basiiru si Bambe danañ ko sant sëñ Basiiru ñang Mbooro danañ ko sant sëñ Basiiru ñang Daaru Kafaal danañ ko sant sëñ Basiiru Njaay Tuubaa danañ ko sant mboolem koo xam ne kii daal daal turandoo sëñ Basiiru ko fa nga nekk section ba nga nekk danañ lay sant di la gërëm di ñaan yàlla yokk say xéewal suñ soxna yi nga xam ne noonu mooy àndal bu góor joxee téeméer jigéen joxe na ci téeméer juróom-ñaar fukk il sant leen ndax ñooy dugg ndugg ci seen xaalisu bopp ñooy togg ñoo yàq ñooy def lépp dara lañ ci defut nag daanaka li lépp taalibe indi lenn li lenn jigéen ñee ko li ñu togg ko indi ko jox ko góor ñu ngi leen di sant ñaan seenu njaboot yàlla barkeel ko ci barke Sëriñ Tuuba Mbàkke wax wax wax waxaat nag du dara lu xol bu sedd rek xol bu sedd day tax ngay wax di waxaat waaye nu jaagi di loo xam ne li bari waxal mbooloo mi yëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm di ñaan sëñ Touba yokk noonu fekk ay déwéni déwéni déwén kii toog suñ kanam nag moom mu mënuñu ko san dañ koy bàyyi yàlla sëñ Touba ak sëñ Bassir muy sëñ Fallum sëñ Bassir sëñ Bassir Mbacke Touba mbiri na it ñu ngi sant di ko boole yàlla ak yonent bi sëñ Touba ak sëñ ñu ngi leen sant yoom ñëpp di leen gërëm dañoo bëggoon nag sëñ Bass Gaye muy wax ci tuuti rek bàyyi Bassirou Touré door wax aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi wahda wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamualeykum wa taala wa barakaatuhu ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di yeesal sunu njëbbal ci Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasulullah yaakaari jaam yi di ñaanal saahibul fadila al xalifatul am bi tarixatil muridiya Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacke yàlla gën ko fa yàggal loolu te gën ko wéral mottali ay yéenam ak yéene yi ko jiitu woon te barkeb Serigne bi di ñaanal bu baax a baax Cheikh Mahmoudou Mountakha nu Cheikh Mahmoudou Bachir al muftil kabir alayhi ridwan man xaala bachir wa nazir moom itam suñu dool dolli ko ak wér di ko kàttan mottali yéeneen ko barkab Serigne Touba di nuyu bu baax tey siyaara sunu sëriñ sunu lépp bu Cheikh Mahmoudou Fadal bi nga xam ne moo tee jataay bi di doomu Cheikh Mahmoudou Bachir nga xam ne liggéey bi bu yàgg ba léegi moom la fi sëriñ bi di yabal mu di ko teewe tañ am ci mbégte lool ci ànd ko ak moom di ñaan suñu borom dolli aw fanam lool lool lool lool lool dolli ko ak bu baax baax baax ci barkeb Sëriñ Tuubaa xasida yëpp xam naa kàddu yi nga xam ni dañ ko ci dolli ginnaaw buñ ko jégguloo sëñ bi ba noppi dafa am loo xam ne waa daayira bi ñoo ko bëggoon a leeral ci mbooloo bi rek bu ko defee ñëpp xam ko ñi koy ñi ñuy seetaan ak ñu ñuy dégg ndax daayira bi yaakaar naa mooy daayira turandoo bi njëkk a sosu ci yoonu murit ñu ne daayira turandoo yi nangam mooy daayira turandoo yi sëñ Bassirou yi mooy daayira bi ci njëkk a sosu ci yoon wi muy 1985 Serigne Moustapha Bassirou itam ci ndigalam la amee woon ak xalaatam yu rafet mu jublu woon ci bëgg mbooleem turandoo sëñ Bassirou yi fu ñu mën a nekk ci àdduna ñu xamante euh, man di jëflante bu baax a baax man di dimbalante mu loon ñi itam bis bii muy bisu gàmmu bii nga xam ni Serigne wax na ni bis la boo demee ci téere yi wax nañ ni Serigne weer wii di weeru gàmm sax mu musaana ñëw ku am sa aajo da nga koy denc ba yegg si ci weer wi ndax ajo ji ko ñu nit ma sa wax rek du ko delloo ginnaaw daf koy defal boromam ni mu ko bëggee. wax na yi tam moom Serigne Touba ne euh, gàmm gërëm na ma raddi anniya rabiul awali bi xëyri suqtin inda dil arshil wali nee na gàmm gërëm na ma. ngërëm loo xamante nii ak mere dootu ca topp mukk mu daan ko màggal it moom Serigne Touba daaw ko màggal itam at mu jot bu gàmmu ñëwee mu màggal ko génn guddi déedéet daw ko defee noonu moom da daan def altine ju jot altine ju jot da daan màggal guddi gàmm ngir yonent sallallahu alayhi wasallam ci la gane woon jamono. ba loolu moo war waraloon sax mu joxoon maam Thierno Ibrahima Faty ndigal guddi altine bu jot muy màggal guddi gàmmu ba loolee ba fii ma wax ak yow Daaru Muxti looloo fay dox. boo demee guddi altine ca bayti ñuy jàng xasida foofee di màggal guddi gàmm kon bis bi nga xam ni li ma jublu ci loolu du waxtaan ci gàmm waaye bis bi nu sëriñ bi tànnal mooy bis bi gën ci nun mooy bis bi ëpp ay ngëneel mooy bis bi nga xam ne itam sëriñ Tuubaa wax na ni am ci la ko am ndax dafa wax ni yaa man habaana billasi lastu tara nasiruha wa abadan lam yuxlaxa mooy bis bi nga xamante ni ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dikk ki nga xam ni lépp lu ma am ci yàlla ci moom laa ko jaare ci moom la la ko sunu borom tabaaraka wa taala jaarale kon bis boobu ñu nu tànnal bis bu mat bis la ñu war koo fonk bu baax a baax a baax a baax di fas yéene door ci ay liggéey yoo xam ne dañ koo naal muy bëggoon nañ bu nu sëriñ bi dimbalee nu mën a am dem ba am daara sëriñ Basiru Mbakke ndax kenn ku nekk xam na ni sëriñ Basiru mbiram daara la mbiram xam-xam la mbiram jàngale la mbiram yar la te it noonu ñu ko defee ci daayira daara yi maam jaara yi nga xam ne turandoo yëpp fexe nañ ba wutal leen génn bu nosu leen ñuy jàng di xam lu di xam bu baax lan moo di ak taalibe di xam lan moo di yoon wi loolu itam naal nañ ko bu baax ci daayira turandoo yi seen basiru yii ndax euh, wax dëgg yàlla doxin wee xaw a yeex waaye waroon naa fekk mu romb fii bu yàgga yàgga yàgga yàgga yàgg léegi ci mbooloo bi waxoon ni bëgg nañ bu yii yëpp jàllee ñu taxawal ay cellule ci région yi ak ci département yi fu ne seeti ñëpp waxtaan ak ñoom ngir suqali ci suqaliwaat daayira bi bu baax a baax loolu lépp nag ànd ak di ci sàkku ñaanuk sëriñ bi loolee ci biir liggéey boobu itam mbooloo mi bëggoon nañ ngir mu doon leen aw fit rek ak ñime ñi nga xam ni ay sëriñ basiiru lanu yàlla dogal ñuy sunuy sang di sunuy kilifa moom loo muy sëriñ basiiru yi nga xam ne ñoo sant mbàkke yëpp ñu ngi leen di woowaat bu baax a baax a baax ci daayira bi ndax mboolem daayira turandoo yeneen yi am ci yoonu yëpp foo dem ñoom ñoo ñoo cay jiitu ba ci daayira turandoo si Mamadou Fadal mii sëriñ bii di si Mamadou Fadal di sunu lépp kenn jiituwu ko ca ndax ki yor daayira ba suñu kër la nekk xam naa bu baax a baax jëfam ca liggéey boobee noonee nga xam ni noonu la ko sëriñ Bassirou Mbacke mu Cheikh Mamadou di defee ci daayira bii ñu ngi woo mbooleem turandoo sëriñ Bassirou yi nga xam ni suñuy kilifa lañu te jiitu ñu waaye nag dafa rawati sëriñ Bassirou yi nga xam ni ñoo sant Mbacke ba noppi nekkaat ci biir kër gi bokk ci njabootu sëriñ bi ndax yaakaar naa ñooñee bu fekkee ni jiitu nañ ci rek xëy na sax jot geeg yooyu waaye buñ ci jiitoo rek dana tax woote biñ bëgg a woote mu daj mboolem kuñ tudde sëñ Basiru Mbàkke ak foo mën di nekk ci àdduna dina gën a yaatal liggéey boobee bu baax a baax kon ñu ngi leen ci woo te xam ni lépp lu waay di sàkku ci lu baax ci sëriñ Touba sëriñ Basiru lépp lu waay di sàkku ci sëriñ Touba boo ko jaaree ci moom danga ko am ndax Seex euh, mujjow paxa sultaanu arifina billahi dafa wax ni yaa muqtadina bi abtaali almaarakati zuuru basiran nasiran fi lmubarakati zuru basiran naziran mubtaghina biha ridwanu rabbi taala an musharakati qulu lahu ya bashira almuslimina maan bashir bi ishaari haqin maa munasabati kon lépp lu nit di wut ci Serigne Touba gaawe na wala gën naa gaawe ci Serigne Bassirou ndax ñaar yi ku benn rek nga am ci Serigne Touba muy ñii Serigne Touba def leen na yar ñii muy seen waajur waaye Serigne Bassirou Serigne Touba moo nekk waajuram ba noppi yaral ko boppam kon moom dàmbee na ñaar ci yoo xam ni ku ci amoon benn rek mu doy doy na sëkk ab tegtal ci ne dugg na ci Serigne ba jeex mooy am na bis addiyee joo xam dañ koo jëlee woon Saalum yët ko Serigne Touba ba mu sëñ bi ndax Basiiru dafa nekkut ñu ne ko ma nga fa mu ne delloowaat leen ko loolu la waykat wax ni amoon na addiyee ju génne Saalum weesu Serigne Basiiru jëm ca baayam ba mu demee daam dani nañ ko delloo jox ko Basiiru joojawaay du suulu mooy man tamaa ji moom fu ngeen ko seeroo gis ngeen ma donga yëpp bokk waaro kon amuñu lu ñuy sikk ci ne moom moo di sëriñ bi te lépp lu waa di sàkku ci sëriñ Touba boo ko jaaree ci moom di nga ko am am nga gën a rafet di nga ko am am nga gën a ndi di nga ko am am nga gën a gaaw ndax moom day buntub ngërëm boo xam ne moo tegtal ni sëriñ Touba sëriñ bi bi mu ñëwee te sëñ daam jàpp ci loxoom indi ko ci sëriñ Touba mu laaj ko fa a alliwam toll mu ne ko laqad radiyallahu anil muminina isubayiunaka tahta shajara mu ne ko moo may seedeel ni liggéey bi ma doon liggéey suñu borom tabaraka wa taala gërëm na kon képp ku yut ngërëm te jaare ko ci moom faw di nga am ngërëm waaw sëriñ sëriñ Basiir loola sëriñ Malick Jang wax ni aalim la aabit la murit saadiq la borom basiira la tambar kaamil la xaafis la am na ngërëmal Cheikh Bamba musula juuyog sunna ngir yonen la kon bu nu borom tawféexalee tawféex rek la tawféex du du du njàmbaar du ngóora du dara doon taalibu sëriñ Basiir tawféex la ci biir kër sëriñ Touba kon bu nu suñ borom tawféexalee ñu doon ay taalibeem ñu amaat yeneen feex nag ñu tudde ñu ko ñu tudde ñu ko nga xam ne wax nañ ni kuñ tuddee nit da nga jël ci moom juróom-ñaari jikko te moom bennam rek wala xaaj ku ko am ci moom foo dem ci àdduna gën fa man fa raw fa ndax sëñ Moussa Ka dañu ko basiiroo bari xam-xam rafet nee leen carré carr xawaa charqu sababin ulumil ahbar borom xam-xam yu mag yi seen xam-xam yañ am moom ci njaal benn wax waxambaaneem la ko làq kon na mel na ci njaal benn waxambaaneem la raw ña rawoon démb kon nañ góorgóorlu fonkat daayira bi jàppaat ko fonk kër gi bañ ko yemale dara te xam ne yëmut ak dara itam nag bu bu weer wi dikkatee fas yéene nañ duñ bàyyi ba gàmm rek ñuy daje fukki fan nag juróom yu ne wala weer wu jot wu ne basir yu ne fañ ne ña ne Touba ña nekk Ndakaaru ña ki Jurbel nañ daje fépp liggéey bi jotutoon ñu jotale ko fa def ko muy sunu lépp dem bay tabax ay kër sëñ Basiru ci régions yi di dem bay tabax daari sëñ Basiru yu Mbàkke yi yi di fa jànge lépp loo xamante ni ndax gàmm gii ñu def ci biir kër mu tax ak kër sëñ Bassirou Mbacké gii mboolem lu fi war a def moo xam li fi is bu tarxee def mboolem li fi beneen daayira def ñun ñii ñoo ko waroon a def loolu nag doxin wee xaw a yeex rek nañ góorgóorlu fedd li sunuy laxasaay fedd li sunuy taalibe jël suñu jot ak suñu doolee ak suñu alal lépp maase ko def ko ci daayira bi te xam ne mooy suñu ndimbal kon ñoo ngi dellu di ñaanal sëriñ bi mu yàgg fi lool te ci barkem mbootum xasida yëpp ñu ngi ñaanal sëriñ bi suñu borom dolli ko ak wér lool ci barke mbootum xasida yëpp ñu ngi ñaan ngërëm yi muy sàkk ci ay magam ay magam di ko sàkk ci seen mag yu baax ja yàlla na leen Sëriñ Tuubaa boole gërëm ñun ñëpp te ñu tàbbi ci biir wasalaamu aleykum wa rahmatullahi jërëjëf alhamdulilahi rabbil alamin bala ñuy yëkkati sunu kaddu noo ngi sàkku ak njëgal ci sang baax bi toog ci sama wet ndax nag lépp loo xam ne saaba yi ñemeluñ ko woon muhammad sallallahu alayhi wa sallam waruñu koo ñemeel njabootu sëriñ tubaay toog fi seen kanam waxul sax ci sunu lamiñ yor rajo di wel-weli su ngeen nu ko jéggut xaw ma fu jëm kon jéggal nu xanaa ndax nga taamu ko ci nun rek nu mën a yëkkat sunu kàddu lu ko may duñ ko man ndax loolu warunu bu loolu woyee Cheikh Modou Fadel njabootu sëñ Basiru gaa ngi nii turandoo sëñ Basiru yaa ngi nii dafa am luñ sàkku woon ci yow daaw ba nga leen di ñaanal lan nga lañ sàkku nag ñu teew nga teew sa mag ji teew nu teewal sëñ Basiru fii loolu la sàkku woon daaw yàlla mi maye nag la nga sàkku woon sa borom daaw may na ko alhamdulilahi rabbil alamin ba mu ko defee nag nuy sant ndax sant ci war ci saa borom dafa wax ne boo santee ma dolli la kon nan sant ca tàllalaat ko loxo sëriñ bi noo ngi sàkku yit ñi nga xam ne ñoonu sàkkul turi sëñ Basiru yi dara doyut fa laaxira waata xabul la siya bi la ma watti rodda ila dunya mal xayat samaam ju baax jaa ko wax Seex Ahmadu Bamba nee na la tàmbalee ca njëkk a ba koy mujjee faatu kenn ku ne samaam nee na boo sañoon sunu borom may la nga del si àdduna wala soyaatan boo sañoon sa borom may la nga del si àdduna doonte minute la doonte minute la lum ci jublu su fekkee waa ji daana jëf mu jëf lum dolladi koo bu daawul jëf mu jëf lum dimbali koo kon nag noo ngi sàkku ñu nu sàkku turu set turu tedd wii ca àllaaxira dara doyu fa fii nga toog ñaanal sa borom ceew boo ñaanal sa borom may la ndax nag aqiqatu jëmu la sareetu jëmu la ñu dolli seenu may nu soog a jàll noo ngi sàkku ci yow sunu wajur yu baax yooyee tudde nu Cheikh Madul Basir noo ngi ñaan nga sàkkul coole yi ñu do sunu borom mi nga xam ne jeexalul dara ca ku may nga géejal ñaanal mu may sunu wajur ya nu soog a jàll Cheikh Cheikh Madul Fadal li sëriñ bi wax léegi ci mbirum Cheikh Madul Basir maam la ma ciy dolli sëñ Abdou Karim sama waju nee na daa toog fi Cheikh Ahmad Bamba sëñ ma sàmba maa kee ngi toog sëñ Tuubaa xool sëñ Abdou Karim ne sëñ ma sàmb sa waaj day xool-xool waaye daa sàkku ci moom pexe wallaahi sëñ Abdou Karim nee na ma Cheikh sàkk na ci man pexe waaye boole wu ja ku fa naa ne àllaa ma xam ne oo fa naanoo waaye Basiru ma ne ko mbag sa waju bu baax sa tur doo bu baax wi ñu sëñ Basiru mu naa mu a ma na muy def ditam ca ca àllaaxira kenn defu ko woon itam billaahi Cheikh Abdou Karim ma ko ci laa ko fekk Cheikh Badul Basir da muy def itam ca àllaaxira kenn defu ko fa itam Basiru ma ne ko Mbàkke man sa turandoo wi bañ na ko bàyyi taalibeem ay taalibeem duñ bokk ak taalibe ci am col bañ na ko ba da leen di ber loolu yi la Cheikh Abdou Karim wax ne moom moom la ko suñ borom xam Cheikh Badul Basir mooy dund ci loolu di nuru colo ba ma dégg ñu ne bare bi Cheikh Badul Basir ci Touba. ku koy laajte ku ne ku ne ana borom bi sëñ Modou Basiir boo demee Touba ñu walla kon ber gi na kon ko kii mooy sa wajur te wallaahi da leen a bàyyee magasin bi damay faral di wax ne tubaab bu demee Paris bàyyi leen magasin bi bañul nga dund ji bañul nga dundal sa njaboot lan la tubaab bi ba yàq yàq te wallaahi yéen yàqu leen njaboot sëñ Basi gi maam nag waat da yàquñu kon dogul leen ci seen baax gii seen baaxu wajur wii ñii toog di ay basiru sunu borom yokkal na mbooloo bi yokkal na pas-pas bi yokkal na wér gi yokkal na man ndax liggéey leen dong leen bëgg te noonu buñ leen liggéeyul dana jaaxle te buñ mënul duñ liggéey buñ wérul duñ liggéey buñ talul duñ liggéey ci amul beneen bëgg-bëgg buñ liggéey leen sëñ bi mbooloo maa ngi teg diggante góor ak jigéen lu jafe góor gu tudd Basiiru boo tax fee woo ne Basiiru te muy jigéen dana la wuyu loolu yombul seet leen seet leen doom ci réew mi ndax toon dooyu jigéen bari na ci bariwul loolu baaxu sëñ Bassirou baaxu sëñ Bassirou sëñ Bassirou yàlla na ko yàlla fayal sëñ Bassirou yàlla na ko yàlla fayal kon nag sëñ Modou Fa Cheikh Modou Fadal wax nañ dëgg dangaa mokk moo xam ne ku war a sant la mu Cheikh Modou Bassir mu Cheikh Modou Fadal waaw ndax sëñ Bassirou kat man kat mag laa du gone ñi mu yar ca ñu sant Mbàkke ñëpp xam naa leen wala ñëwa ji xawut ah yàgg na lool xanaa mag ña waaye ku fi ne tey di boroom kër tool ci juróom-ñaar fukki at wallaay xam naa la xam naa ne la sëñ Basiru yàlla woon kon bu ko bu ñëpp defoon sëñ Basiru mi rek ci la wàcc ci la wàcc de gën a am ñëpp waroon def ne sëñ Basiru sëñ Fallu ndax ñim ñaar ñëpp xam naa leen kenn na ku ne sëñ Basiru defal na la wallaay kenn ku ne sëñ Basiru defal na la Cheikh Badul Basiru defal la man defal la man a defar nag nga jëw ci moom di sàkku defar da ngay futtiku nangu ne moo la yar nangu ne moo defar loo xam moo la ko ñëw fay ko bor bi nan ko fay bor bi moo xam ku sant Touré moo sant xam loo moo xam ku sant neneen noo mën a sant sëñ Basiru defar ci waaye santoon doo defar la man nan góorgóorlu nan fexe ba mbooloo mi yokku nan fexe mbooloo mi yokku nu takkuwaat fas fa séef dolli jëf kenn du nu fay nag ku sëñ Basiir ci sëñ Basiir moom wallaahi ñemewul boo dafa am pay billaahi ñemewul boo dafa am suñ futti ko wan ko suñ bopp fam suñu xel jox ko fam suñuy doole jox ko xam suñu yitte jox ko daanu def noo xam ne kenn def ko nitam ci réew mi daanu def noo xam ne kenn def ko nitam ci réew mi lu ci des rek ci la waaye buñ des waay buñ des buñ des nan xam ne sëñ Basiir la ñu tuddee buñ ko joon jaay see ci milliard danga nga gis koo jënd dama ne tur sëñ buñ ko doon jaay ci milliard da nga gis ko jënd kon bu yàlla baaxee ak suñuy wajur ak sëñ bët yu nangul la ko ba du sëñ bët yu nan ko fay bor bi nan ko fay bor bi nan góorgóorlu nan góorgóorlu ca ñaanal suñ sang sii nag yàlla guddal seen fan ndax amum sëriñ kët yomb na waaye sëriñ su mel ni ñii kat yombuñu yombuñu de yombuñu de ko am lu yomb nag da nga koy fonk nan ko fonk bu baax a baax a baax a baax a baax maa ngi jégalu rek wax ji ndax nag. nit bu demee ba ñuy wax ak juróom-ñett fukki at su waxee wax jaman naa dëng waaye jubluwoo ci dara lu di di lu baax dina ko dina ko du leen ko wutle loolu dong laa jublu waaye nag nan góor bu baax a baax a baax a baax a baax sëñ bi toogaay bi métti na ci arab yi dañuy wax ne xaylul kalaam maa xàlle wa dall loolu arab yi wax xaylul kalaam maa xàlle wa dall kon nan xam ne li ci xel mi jeexut li xel mi jeexut lam yi mën naa may wax ba tey lamiñu naar la wallaahi mën na may wax ba suba waaye nag toogaayu ci toogaayu ci minute minute minute mett na ci man ndax xam naa fi mu toll yi teyam bàyyi yi teyam yi koy nekk yëpp xam naa ko kon looloo tax sama wax fii lay war a yem lii mu wax léegi moo ci nekk moom mii nan ko dimbale mu mu dimbale nu nan ko dimbale jox ko sunu bopp jokk suñu xel jokk suñu yitte mu dem ak moom ca magam ju baax jee Cheikh Mountakha noo ngi dekkaat sëñ bi nan dékki woon daaw noo ngi ñaalu nan ñaalloo woon daaw noo ngi ci kanam jërëjëf mbagg nee na ngeen tàllal seen loxo mu ñaan leen mu ñaanu nee na ngeen tàllal seen loxo mu ñaanu النبي من أسس وقادني فوق المنى في تلسس